toll si juróom-ñett ci ay fan yéen a kaay gi di réew mi quotidien nee na gouverneur bu Dakaaru ak gouverneur bu Thiès ñoom ñoo génn ay arrêté yokk li nga xam ne maanaam mooy couvre-feu bi lu toll si juróom-ñett ci ay fan jamono ji mën nañoo wax sax na ñoom ñoo wuutuma Macky Sall ci lu jëm ci wàllum dogal gee ministre de l'intérieur ci réew mi di quotidien nee na loi d'habilitation bi nga xam ne fan yi ñu génn modifié nañ ko assemblée nationale ah, tey jii si talaate ji dana ñu ko promulgué ci biir yéen a gi ci xalim ak Assane li mu gis ci ni nga xam ne moom la ñu doxalee ci lu jëm ci état d'urgence bi bi kafuyaas dëgg moo ci am girawaal yéen a kaay gii di li quotidien moom dim xëy di ko dëggal nee na couvre-feu bi nga xam ne démb amal nañ ko ci ndakaaru ak ci Thiès maanaam amul benn base légale boo xamante ni maanaam fu la ñu sukkandiku mbir mi jaarul yoon yéen a kaay gi nee na ñi nga xam ne ñooy gouverneur yi amuñu benn sañ-sañ génne ay arrêté ngir nag gàllankoor askan wi ngir ñu doxi seen yitte vide juridique moo ci am yéen kaay gi sax daan nay wax ne bu passé sax nag njombe gi nga xam ne def nañ ko ci lu jëm ci wàllum yoon maanaam dafa illégitime maanaam amul benn pertinence boo xam ne couvre na ko lii sax niru ne woppi coronavirus ji moom guddi ba guddi lay dox yéen a kaay gi di enquête nee na constat bi nga xamante ni ñu baree bari daat nañu koy def xayma bi mooy fukki fan ak ñaar yi nga xam ne moom la ñu def couvre feu état d'urgence amul benn benn benn njëriñ lu dul nag indi ay gàllankoor yu rëy rëy ci askan wi nag te loolee téewul sax maanaam état bu Sénégal daal di koy yokkaat couvre bi yéen a gii di Vox Populi moom lu mu gis mooy mbir mi sax dafa doy waar ndax nag état bu Sénégal dafay mujj sax nag moom tam daal di jaawale kañ la commencé couvre bi ak kañ la war a jeex nga xam ne mooy dëgg bu ñu ko waxantee mbir mi dimanche ci minuit la war a jeex maître Abdoulaye Tine nee na couvre-feu bi état d'urgence bi jeex na 17 janvier 23h59 la jeex démb nag Antoine Diome moom nee na daal altine ci minuit la jeex journal bi di Vox Populi nee na ko loolee amul mbir mi ma ngi jeex dimanche ba minuit jotee yéen a kaay gi de laas mu ñu xamal lan ñu ginnaaw nag fukki fan ak ñaar yi bi nga xamante ni jeex na ak jàmbat yi nga xam ne askanu Sénégal ñu baree bari bari doon nañu ko def ak doon ko naqarlu Macky Sall jël na pataas bu tàng bi jox gouverneur bu Thiès ak gouverneur mu Ndakaaru ñoom ñuy doxal la yéenekaay gi di source a xëy di ñu xamal laan ne virus bii di coronavirus ma ngi jàbba jonge ci district sanitaire bu Daara Jolof foofee cas communautaire ya ma nga fay explosé yéenekaay gi du l'Observateur nee na ñu def ndànk état bu Sénégal jamono ji maanaam ma ngi def lu garaaw a garaaw garaaw ci coronavirus bi ndax ni nga xam ne moom la ci état bi communiqué communication bi moo jaarul yoon te état bi nag li nga xam ne nemmeeku nañ ko bi mbas mi commencé ba léegi bëri na ñoo xam ne nguur gi yeyu ñu leen waaye nag saa sunu xëyee ñoom ñuy def ay njombe ci ni nga xam ne moom la ñuy communiqué xam ngeen ne Antoine Diome niki démb yeex na wax askan wi ñu bari doon déglu waroon nañoo gaaw a communiqué wax ak askan wi nag te dañoo dem ba sax mujjantal ga doog wax journal bi nee na loolee lépp ay jafe-jafe la docteur Mamadou Diouma Diallo moom ab jàngalekat la ci lu jëm ci wàllum communication ci université Gaston Berger nee na Macky Sall ci boppam couvre-feu bu njëkk bi nga xam ne jël na ko na ko jëlee sax amul benn élégance te état bu Sénégal dafa war di préparer askan wi psychologiquement waaye nag nag dañuy yéex a communiquer loolu la ñu nemmeeku beneen bi sax état bi bu ñuy jël ay dogal du am benn explication bu leer boo xam ne ñu ko expliquer askan wi te loolee nag ay giraawaali la ki njaaxum yéen a kaay gi di réew mi quotidien ak le témoin mu ñu xamal naan ñu Boubacar Seye bi jiite Horizon sans frontières ni ki démb defeere nañ ko waaye dafay mujjee am ab retour de parquet journal bi daal di xëy wax moom la témoin nee na cent dix huit milliards yi nga xam ne moom la ñuy wax ne Union européenne moo ko dimbalee Sénégal ngir nag ñu xeex lu jëm ci wàllum émigration clandestine xaalis boobee ndax am na samp laaj en tout cas li am ba des daal maanaam principaux quai d'embarquement migrants yi nekk ci Sénégal bi ñu leen laajee ñoom pêcheurs yi nee nañu gisuñu benn xaalis xaalis nag am na wala amul état bu Sénégal wala Union ñoo ci war a indi ay leeral yéen kaay gi de Libération nee lu jëm ci mbirum Boubacar Sèye bi jiite Horizon sans frontières information judiciaire la ci ubbi yéen kaay gi de Rewmi Quotidien ñu xëy fekk fa Idrissa Seck mi nga xam ne moo jiite conseil économique social environnemental économique sociale environnementale ñuy jooy ak di rendre hommage ki nga xam ne mooy Cheikh Ngaïdo Ba mi nekkoon membre ci conseil économique social environnemental président Mbagnick Diop daat nay wax ne ki nga xam ne mooy Cheikh Ngaïdo Ba maanaam def na liggéey bu am solo ci lu jëm ci wàllum cinéma africain ci biir fédération panafricaine de cinéastes wax na ne perte bu mag la ci déndu Afrique rawatina ci lu jëm ci wàllum cinéma yi Idrissa Seck moom li mu xamle nee na Cheikh Ngaïdo Ba nit la koo xamante ni ku am compétence la waaye ku dynamique xamal lan ñu ñi nga xam ne ñooy jaar ci autoroute à bi nañu def ndànk attention danger de mora ndax à bi bëri na ay animaux yoo xam ne ñoo koy jéggi te buñ koy jéggi ngay daw lu bëri accident mën naa am maanaam jur yi nga xam ne ñooy jéggee ndax léeg-léeg mbaam yi di jéggi xar yi di jéggi nag yi di jéggee barrage yi nga xam ne moom lañ defoon ci autoroute à bi bëri na ci foo xamante ni barrage ya dañ na sortie Bambey bi rek fan yi ñu génn am na koo xam ne naroon na ca ñàkk bakkanam yéen a kaay gi di réew mi quotidien l'observateur vox populi la sud du quotidien xëy ci jaar Sow mi nga xam ne nee nañu enquête bi li mu wane jaari Sow moo demal boppam fa mu nekk moo fa bàyyi boppam yéen kaay gi di sunu làmb nee na Modou Lo bay boo mu def attention bay boo mu waajal boppam ndax Ama Balde ma ngi koy waajal bu baax a baax a baax Ama Balde ma ngi ci salle musculation yi Ama Balde ma ngi ci montagne yu Tiwaawoon pël yi jamono ji sax slogan bi nga xam ne moom la waa écurie Falaye Balde di waxtaane mooy travailler beaucoup travailler toujours travailler jamono ji supporters yi Ama Balde yi nee nañu dañoo namu Ama yaa yëngal